parce que loolu dañ koy fàtte. l'écueil des parrainages. Mhm. ragaloo ko. ah non pas du tout pas du tout xam nga vous serez surprise ah gis nga le le Sénégal euh, ak l'Afrique en fait ils sont à la recherche de nouveaux types de leaders li ñu seet ci leaders yi maintenant mooy est-ce que nit ki d'abord euh, am na xam-xam est-ce que il mën na leen génne ci situation bi ñu nekkoon est-ce que nit ki am na aussi un carnet d'adresse pour. li nga xam ne mooy les problèmes essentiels muy investissement wax naa tout à l'heure que croissance bi ñu soxla ak liy créer emploi mooy ay investissement ça veut dire que il faut nga mën a indi ay technologie il faut nga mën a indi ay développement de de de port ay développement mais mais loolu c'est quand vous passez le cap du parrainage. oui oui oui mais parrainage bi euh, vous allez être surprise le gis nga soo fekkee ne mënoo mënoo am euh, ay ay quarante mille parrainages c'est pas la peine ngay dem aux élections moi pour son problème c'est pas ça ce problème c'est arrivé au moins à 400 000 loolu laa bëgg sur l'ensemble du territoire parce que n'oublie pas que euh, je suis d'abord j'étais inspecteur de l'agriculture loolu ñu bëri xamul beaucoup comme ça de Paris et de Londres en réalité bi ma génnee de l'agro les premiers postes bi ñu affecté mooy Diourbel je connais tellement bien ce pays Maïmouna que doo gëm sax de toute cette région Mm-hmm. voilà voilà donc en réalité euh, beaucoup de gens que ngay gis ni man maa leen gën a xam sax ce pays amul fu mu fi demul de Kédougou jusqu'à Ranérou mais mais mais au cas où mm-hmm. parce que il faut le prévoir au cas où vous ne passez pas le cap mais des... mais parce que li ma am rek ci ay parrains <laughs> j'ai déjà comme entre commencé le parrainage. mais euh, mais, mais, mais yow.